ci turu alxaaji Mor Fati Mbacke mii borom gaawan tey ak Serigne Abdoul Khadir Serigne Jiili mii Serigne Mourou Mamoun tey ak suñu mag alxaaji Serigne Cheikh Anta Mbacke moom Serigne Modou Rokhaya mi nga xam ni mooy jëwriñu kër maam Cheikh Anta di njiital kër Serigne Gaawaan ñu ngi leen di nuyu ci seen tur. mu jaare ci turu sëñ Aas mii. mu jaare ci turu sëriñ Aas moom sëriñ Amidou mii. mu di ñu def loolu loo xamante ni. mënuñu ko de. waaye. murit moom. faaw muy jëfe ndigal. ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ñoom ñooñu. sëriñ bi nee na. gis na taxawaay bu baax. gis na taxawaay bi bu baax. taxawaay bi bu baax. taxawaay bi bu baax. mi ngi sant ci bu baax a baax. mi ngi sant bu baax ci lii nga xamee ni mooy. nii ñu taxawoo bi su Alaaji Amadou Ndiaye Diop bii. di sant waa kër Serigne Ndiaye Diop. nee na mi ngi sant waa kër Ahmadou Serigne Ahmadou Ndiaye Diop gépp. ci turu Serigne Alaaji Diop. ci turu Serigne Alaaji Diop. mii kilifa gi. mii kilifa kër Alaaji Amadou Ndiaye. wàcc sëñ Mourou Soore. wàcc sëñ Mourou Soore mi mag ñi sëti Alaaji Amadou Ndiaye joomi. ba ci ba ci gën a tuuti. ba ci gën a mel ba ci gën a tuuti. bis bi gis nañ ni ko ni ko fonke. nee bis bi gis nañ ni ngeen ko fonke lool. waaye nag day seen bis. waaye nag day seen bis. ndax. niñ ko ni ni ni ko ni ni jiitu ko waxee rek. nee ñi jiitu niñ ko waxee. mënoon nañoo wax ci turu sëñ Gaawaan. mënoon nañoo wax ci turu sëñ Gaawaan. wax ci turu sëñ Ahmad Njaay. wax ci turu El Hadj Ahmad Njaay. ndax lépp benn la. ndax lépp benn la. ñi fi jaar ci waxit. ñi fi jaar ci waxit. dégg nañ wax ji yëpp. wax ji yëpp. wax rafet. wax ji yëpp a noonu la. wax ji yëpp noonu la. mën nañ ne. man nañ ni. sëñ Gaawaan. sëñ Gaawaan. ni mu amee espoir. ni mu amee espoir. ni la sëñ Mame Ndiaye amee espoir. ni la sëñ Amadou Ndiaye Diop amee amee espoir. histoire boo xam ne dañ ko mën a nettali. histoire boo xam ne dinañ ko mën a nettali. te du doon leneen loo xamante ni da nga ci sos dara. te du doon loo xam ne da nga ci sos dara. ndax man toujours li may wax. ndax man toujours li may wax. waxtaan ci Serigne Touba. waxtaan ci Serigne Touba. jërta formé xisa jërta formé xisa sëñ Tuubaa jërta ñoddil nit it sëñ Tuubaa jërta ñoddil nit it ndax li mu def ndax li mu def doy na sëkk doy na sëkk li mu amit li mu amit doy na sëkk doy na sëkk sëñ Moon Njaay nag nee Alaaji Amadou Njaay Jóob ñii moom bis bi tey mii nga xam ni moom la ñu tijjee màggalu Daaru Salaam ngir jëm ca màggal de le 23 moom bis bi ñu tuddee ko màggal gi ren daa doon kenn koo xamante ni daa doon kenn koo xamante benn bi benn bi. naa njëkkee naa njëkkee naa njëkkee melaw sëñ Ma Ndiaye sax. naa njëkkee melaw sëñ Ma Ndiaye Diop. ndax te bañ cee gudd. nee te bañ cee gudd. ndax lenn rek doy na ci sëñ Ma Ndiaye. nee lenn rek doy na ci sëñ Ma Ndiaye. waajtaayu màkk woowu. waajtaayu màkk woowu. bi ko sëñ Gaawaan di def. bi ko sëñ Gaawaan di def. ba dikk di ci diisoo ak moom. ba dikk di ci diisoo ak moom. ba mu ci waxtaanee ak moom. ba mu ci waxtaanee ak moom. lu mu ko wax lu mu ko wax. en tout cas. dañu mbaa. mbaa da nga yóbbaale Ibrahima Dia. mbaa da nga yóbbaale El Hadj Ibrahima Dia borom a jàpp ndara Daaru kattan baax na. mu ne foofa damaa xam kattan baax na. te na kattan te na kattan. xam nga loolu. xam nga na. daal daal daal di ñëwaat Thiel. baax na ñëwaat Thiel. daal di wóolu El Hadj Ibrahima. daal di wóolu El Hadj Ibrahima Diaw. waxtaan caag moom moom itam. waxtaan caag moom itam. mu ne ko mbaa dina yóbbaale Mën Ndiaye. mu ne ko waa dina yóbbaale El Hadj Mën Ndiaye mbaa dina yóbbaale Mën Ndiaye Diop. mu ne ko lu tax. mu ne ko lu tax. mu ne foofu de am xel dafaa baax. mu ko foofu am xel dafaa baax. te am na xel. am xel. kon. kon. mag ñi noonu lañ àndewoon. te mag ñi noonu ku ci nekk lu baax loo gis lu baax loo gis sa morom nga ko yéene sa morom nga ko yéene taalibe jii sëñam di doon ci loolu bi am boole leen ñoom ñaar yóbbu ko jëppoon lii sëñ bi doon nekk ci ndigal nee li sëñ bi doon wax ni alaaji mu jaay fu mu a nekk ci ndigal sëñ gaawaan la nekk daaru Karim gée daaru Xadim gée. daaru Xadim gée. sëñ Abdou Karim dana ma. sëñ Abdou Karim dana ma. dañ faa jaar guddi. dañ faa jaar guddi. sëñ Man Ndiaye. sëñ Man Ndiaye. ak sëñ Mbacke Bousso. ak sëñ Mbacke Bousso. ak sëñ Gaawaan. ak sëñ Gaawaan. ñu jëm Njaareem. ñu jëm Njaareem. ñu daal di sëñ Mbacke Bousso. ñu dox ba ci yàgg sëñ Mbacke Bousso. daal di daal di ne mun njaay wan waxtu moo war a jot fi mu toll nii. ni ko mun njaay man waxtu moo war a jot fi mu toll nii. waaw di téye ñu yàgg ma ne ko waxtu sàngam a mu daal di téye mu yàgg ne ko waxtu sàngam de war a jot. mu mun njaay di nekk jàmbaar nga. ni ko ah mun njaay di nekk na xam-xamam. loolu wane na xam-xamam. sëñ sëñ mën sëñ mën njaay la sëñ mbàkke wax loolu sëñ mën njaay la sëñ mbàkke musa wax loolu sëñ mbàkke sëñ mën njaay wax wax waxtu wi jot sëñ ne sëñ mën njaay daal di wax waxtu wi jot mu doon waxtu woowa tembe mu doon waxtu woowa tembe mu ne kon de mën njaay nekk nekk jàmbaar la si ne sëñ mbàkke musa ne ko ah mën njaay nekk jàmbaar la sëñ gaaw ne ana lu ngeen di wax noonu sëñ gaaw ne ana lu ngeen di wax noonu sëñ mbàkke ne ko sëñ mën njaay mi laay waxal mu ne ko ah sëñ Mounde Ndiaye mii lay waxal. mu ne ko ah Mounde Ndiaye dafa naa fii ñu toll boo ci jotoon dina baax ci yow. mu ne ko ah Mounde Ndiaye de fii ñu toll fii ne doo ci jotoon dina baax ci yow. mu ne ko waaw. mu ne ko waaw. toogaan nañu at i at. toogaan nañu ay at i at. mu nawetaan si foofee. mais mu nawetaan si foofee. ci ci dëkk bu dend ak moom. nee ci dëkk bu dend ak moom. ba mujj gi mu ñëw fexe dogul si foofu. nee ba mujj mu ñëw fexe dogul si foofu. mu doon dëkkam mu doon dëkkam. la fa la nekk. nee fa ma la nekk fu mu toll muy Daaru Xadim. kon kon kon kon loolu wane na ci ndigal la doon nekk. kon loolu wane na ci ndigal rek la doon nekk. mu ne ma. mu ne ma. wet ak taalibe gi laay waxaat foofu ci ba tey niñ ma niñ ma doon ci taalibe. wet ak taalibe gi laay waxaat foofu yi nga xam niñ ma doon ci taalibe. mu ne bi nga xamante ni Sëñ Gaawaan mi ngi jógee Segu. mu ne bi nga xamante ni Sëñ Gaawaan mi ngi jógee Segu. moom sëñ Abdou Karim. moom sëñ Abdou Karim. moom dong. moom dong. la Sëñ Gaawaan fekk ci góor moom dong la sëñ Gaawaan fekk ci góor. ci Daaru Salaam ci Daaru Salaam. mu nekk satalaat eh, kër gi. mu nekk satalaat kër gi. bi bi sëñ Gaawaan ñëwee ñu jaarale ko ci ñu wàcce ko Ndula. nee ñu wàcce ko Ndula. jaar moom ci àll bi. jaar ak moom ci àll bi. ñëw Daaru Salaam. ñëw Daaru Salaam. dafa gudd. dafa gudd lool. moo tax maanaam eh, may gàttal. may gàttal. bi mu ñëwee. bi mu ñëwee. sëñ sëñ gaawaan laaj eh, njaboot gi sëñ gaawaan laaj njaboot gi ñu ne ko ña nga njaareem di la gatan ñu yëpp seex sëpp ña nga njaareem di la mu daal wax ne na leen nañ leen wooyi ne mu wax ni nañ leen daal di wooyi ñu daal di fab oto commandant bi ne ñu daal di oto commandant bi mu dem jëli wooyi leen ne mu dem daal di jëli leen wooyi leen léegi commandant bi ne ko kaa ñu samp ay sàkket mu wër commandant bi ni ko kaay samp ay sàkket mu wér. balaa nit ñee ñëw dal ci kawam. balaa nit ñee ñëw dal ci kawam. moom moo moo commandant bi. ne moo commandant bi. gas ay sàkket di wërale. ñooy gas ay sàkket di wërale. sëñ gaawaan nekk. fi sëñ gaawaan nekk sëñ Abdou Karim sëñ gaawaan génn. sëñ gaawaan génn. ne ko ana lu ngeen def nii. ni ko ana lu def nii. mu ne ko dañoo bañ mbooloo mi agsi. di dal mu ne ko dañoo bañ mbooloo mi agsi dal sa kaw. mu ne ko daana leen lépp. mu ne ko daal leen lépp. dañ maa namm rek. ne mbooloo mi duñ dal sama kaw dañ maa namm rek. te ma mu jeex. te buñ ma gisee mu jeex. kon kooku kon won wane na ak njaboot tamit niñ taxoo woon sëñ gaawaan. kon kooku njabootam tamit niñ taxoo woon ak borom gaawaan. nee nee na ma. nee ma sëñ Abdou Karim Diop. am na bis boo xamante dafa maral am nawet. am na bis boo xam ne dafa maral aw nawet. maral yu metti lool. maral metti lool. mu yónni ko mu yónni ko sëñ Mandiaye yónni ko sëñ Mandiaye yónni ko ci gaawaan ci sëñ gaawaan jox kom xar jox kom xar ko boo demee nga joxal ko borom gaawaan ni ko boo demee nga joxal ma ko borom gaawaan te ko mu ñaanal ñum ndox ne te ne ko mu ñaanal ñu ndox fekk booba teen boobee fa nekk fekk boobee teen boobee fa nekk nam bareem ndox nam bareem ndox tundoo tundoo yëpp di fa naan si tundoo yëpp di fa naan si moo taxoon sax mu di ma wax wax joojoo ak yoon wa na muy ñàkk a doge. ne ak yoon wa na muy ñàkk a doge. bi mu dikkee. bi dikkee. nee na dafa taxaw ci buntu sàkket bi. nee na dafa taxaw ci buntu sàkket bi. daal di yërndoo. daal di yërndoo. daal di yërndoo. nee daal di yërndoo. sëñ gaawaan daal ne borom doosu su yee dañu mën doo doomi mën jaay nag. ne borom sëñ gaawaan bi borom doosu gudd yee dañu mën doo doomi alaaji amadu jaay nag. ñu ne ko mooma de. ñu ne ko mooma de. mu mu mu ne woo leen ma ko. mu ne woo ko. ñu ñu woo ko mu ñëw. mu ne ko lu doonoon. mu ne ko lu doonoon. mu ne ko sama baay de moo ma yónni. mu ne ko sama ma yónni. xar mii xar mii. nee ma andil la ko. nee ma andil la ko. da nga ñaanal leen am ndox. da nga ñaanal leen am ndox. mu ne ko ak yoon. mu ne ko ak yoon. sëñ Dawa ko ak yoon. ak yoon ak yoon te waxagul yoon. nee na keroog ba muy wàññi ko. nee na keroog ba muy wàññiku. ba muy jub Madina. ba muy jub Madina. day taw ba day xuus. day taw ba day xuus. day day mu fanaan Madina. nee mu fanaan Madina. bi mu agsee ci sëñ Modou Diop Amin Sow. bi mu agsee ci sëñ Modou Diop Amin Sow. mu ne ko foo demoon nii mu mu ne ko foo demoon nii mu nett li ko aw yoonam mu nett li ko aw yoonam mu ne ko sa bët yi jàkkaarloo naag sëñ gawaan mu ne ko sa bët yi jàkkaarloo naag sëñ gawaan mu ne ko waaw mu ne ko waaw mu daal di def nii kanam daal di koy raay ne muy raay bëtam yi ak kanamam ga daal di koy raay ci kanamam ne daal di koy raay ci kanamam moom sëñ mu jëm amit so kon taw palaa jëm muy jaay kon foofu rek doy naa yem foofu doy naa yem ci ñoom gëm ak bëgg guñ bëggoon sëñ gawaan ci njaboot ak sëñ mën jaay ci njaboot alaaji moom buñ ko toppee buñ ko toppee mën nañ fee fanaan man nañ fee fanaan euh, na sëñ bi ñaan rek na sëñ bi ñaan sëñ xaadim sali mii ne sëñ xaadim sali ak comité d'organisation bi ak sëñ Cheikhouna euh, ak ak ak yow mii ne ak man mii ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax ne sëñ Cheikhouna ak mboolem kilifa yëpp ñu ngi leen di sant bu baax a ndax ndax lii ngeen di def lii ngeen def sëñ Cheikh nee na moom la waroon sëñ Cheikh Anta nee na moom la waroon samam xel ci xawoon a génn sax samam xel ci xawoon a génn sax ndax ndax moom laa waroon a jiital moom laa waroon a jiital seen taxawaay rafet na lool ne sëñ Xaadim yaag sëñ Cheikh na ak mbooleem sëti bu bundi kër sëti borom gaawal yëpp mooy xale yi topp sa ginnaaw yëpp góor ak jigéen nee na seen taxawaay rafet na lool waaye nag waaye nag seen maam ngeen di defal na ngeen xam ni seen maam ngeen di liggéeyal kuy liggéeyal sa maam kuy liggéeyal sa maam loo ca def. loo ca def. sa maama lay fayal boppam. sa maama lay fayal boppam. ñu ngi ñaan suñu borom. ñu ngi ñaan suñu borom. taxawu leen. taxawu leen. te lafal leen am ndox. te lafal leen am ndox. pàcc yi fege yëpp. pàcc yi fege yëpp. suñu borom fegal leen ko. suñu borom fegal leen ko. barke Seexu Xadim. ci barke Seexu Xadim. sant nañ bu baax a baax. sant nañ bu baax a baax. sant nañ bokki njóobeen yi mu ne foofu ne ñi sant baax bokki njóobeen yëpp sant bokki mbàkke yi ne sant bokki mbàkke yi taxawaay yi rafet nañ lool taxawaay yi rafet nañ lool bis bii ñu jëm bis bii ñu jëm yàlla nañ ci àgg jàmm yàlla nañ ci àgg ak jàmm muy bis màggal gi te lépp luñ ci liggéey te lépp luñ ci liggéey mu ànd ak ngërëmal sëñ Tuubaa mu ànd ak ngërëmal sëñ Tuubaa jërë ngeen ngeen jëf